ñu bari lañ ci waaw loolu moo tax bu sell la bu tedd la ñëpp bu waxtu yu jotee ñu bàyyi suñu itte ñëw fi toog wet li sëriñ bi ba mu ba ngeen noppi ci liggéey bi mu ñaanal ñu kenn ku dellu sa kër waaw. bisimilah kon ñu ngi toog sëriñ Cheikh Thioro Mbacke sëriñ Cheikh Thioro ñu ngi ànd yi jotaay bi nga xam ne moom mooy jotaay bu sell bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko teewe di ko dundal ne ko sëriñ du la njaareem yàgg nga fee teew kon ba ban yëngu ci am ak ban gis-gis. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant yàlla rek di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam tey gërëm ku tedd ki di sant yàlla sant sëriñ bi ci jëmi Cheikh Mahul Muntaxa mi nga xam ni jox nañu ko ba mu baaxuñu jataay bi nga xam ni ku fi teew sa xel du dem ci lenn lu dul sëriñ bi bi mu nekkee njaareem nekk ak mag ñi ci njaareem di leen sol lam leen daan sol jotaay boobu kon su yàlla dimbalee dafa ñu tawféex mu jox ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ko wote jataay bu sel bi nga xam ne ku fi ñëw dolli ko ci lu mën di doon ci lu baax ñu ngi sant yàlla bu baax te di ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te may ko ak wér barakatu sulay alayhi salaatu wasalaam ndax ku ne jaar fi waaye ku ko gisal fi ko bàyyi yàlla woon ko ko mu andi ko kon sant di gërëm di wax ni jataayu dal xel la. jataayu dolliku la jataayu tarbiya la ndax ku fi ñëw soo ñibbee si kat di nga dolliku ci yëpp di nga dolliku si diggante sa borom di nga dolliku ci sëriñ bi di nga dolliku ci ab yar dinga nga dollu ci tarbiya wu ndax ku xool ñi fiy daje ci saal bi doo dégg benn kàddu dul ay xasaay ñëpp ni teg di roy ci jëmmam ji loolu ndimbal na ci ñun tawfeex la ci ñun kon ñu sante ko yàlla ñaan yàlla suñu borom mu guddal fanam tamit ak wér sant leen yéen ñi nga xam ne yéenay xes bu tarixiya sëriñ fab liggéey bi teg ko ci seen loxo ngeen koy taxaw tax ngeen wu rafet waaye ñu ci fàttalikuwaale sëriñ aatu ndax na nga daaw jéeg ak yëpp mu ngi fi doon ànd ak borom dogal mu jiitu ji ko ñu yàlla suñu borom may ko euh, jokk yërmande ci barke sallallahu alayhi wa sallam sëñ Yuusuf mii fi nekk itam yàlla dimbali ko dimbali leen bañ yàgg ak liggéey bi ñu daal bëgg nañu lool fas yéene ànd ak sëriñ bi nag ba keneen muy jeex barke sallallahu alayhi bisimilah bisimilah waaw bisimilah xéwal la xéwal la xéwal la rek ñaari minute la rek Mbacke ñu ngi lay ziar baax sëñ Fallou ñu ngi ziar baax yaa ngi jotaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke woote na ko di dundal ni ko suñu baaraam dund la njaareem ban yëg-yëg ak ban gis-gis nga am ci jotaay bi mhm. alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalib yëpp fu ñu mën a nekk ci gox yi fàccante ko yi di sant yàlla rek ñu suñu boroom taw féexalee ñu ànd ci jataay bi ñu jataay sant yàlla di dund sëriñ bi waxtu wi jotee ñëpp maase ñëw teewlu xasida yi tëbb ci yéegaat loolu ak sant yàlla la ko sëñ ci waxee léegi ndokk bu Cheikh Mountakha xalaate lii dundal ko woote ko bokkam yëpp fekk si ko ci taalibe yëpp fekk si ko ci ñëpp am mbég ñëpp bégaat loolu sant yàlla bu baax a baax ndax am na jamono yooyu lu yàlla tawféexee nga fekk ko ay jamono la sant yàlla tam wóor na ma ne image bii mu nekk image bu yéeg la dafa gaa yàlla yëpp di ko di jàkkaarloog noonu loolu nag ni nga xamante ne suñu borom dafa tàmm tànn ay barab ñu gënante tànn ay jamono ñu gënante yàlla dimbalee na nag nu teewe ci mu wóor na jamono ji nga xam ne suñu borom gën a tànn mu weeru koor tànn béréb bi itam tànn jataay bi ko yàlla fekk lool sant yàlla bu baax a baax dañaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool yàgg koo taxawee yàgg koo ànd ak bokk yàgg koo ànd ak taalibe yëpp yéen ñi nga xam ne yéen la dénk léegi jataay bii dénk leen liggéey bi itam yàlla def ngërëm di gën a dolli dolli ay ngërëm ci yéen ndax yéen dañu wax ne jumtukaay Serigne Touba ngeen waaw kon nag noonu fàttali bu baax itam suñu wala bu màgg ba sëñ atu nagari moo fi daan nekk boo fas si dañuy dañuy yëkkati mu ne ah, lii de àjjana la lii de moom dafa mel dafa noon noo ngi rek kon nag loolu loolee ma doon wax yàlla nañ seere jataay bii fa mu nekk di jàkkaarloog noonu suñu boom gën ko dool ay tawfeex sëñ Yuusu mi nga xam ne moom la dénk liggéey itam sëñ bi gën koo taxawaay si léegi itam yàlla dëgëral ko moom itam ba fu ngeen ko bëgg a àggal rek mu àggale ko jërë ngeen jëf maa sant gërëm baax a baax bisimilah. bisimilah baax sëñ Tuubaa kon sëñ Daara Jaxate ñu ngi toog ak yow ci jotaay bi nga xam ne moo jotaay si am la Mountakha ban yii nga ci am ci sëñ ko sëñ bi doon la njaareem ak ban gis-gis nga ci am. waaw xam naa di sant yàlla di sant Serigne Touba bu baax di sant tan nag Serigne Mouhamadou Mountakha sant goo xam ne amul ab amul amul ab dayoo ndax. taxawaayam bi nga xam ne taxawe na ko yoonu maamam wii taxawe ko liggéeyu sëñ Tuubaa bii loolu dafay mel ne mënutoon ñakk ci yoon wi ndax weer wu tedd nii lu xel dajul bokk na ci xaside yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne yéen yi nga xam ne mooy seenub liggéey muy isbu tarxiya te ngeen jóge ko naka jekk sëriñ bi dundalewaat ko ko sëriñ Touba gi loolu cantu dongo yi ak cantu yoon bi ñëpp ameel nañ ko sëriñ ñu ñaan nag ci barke sëriñ Touba rek mu yàgg lool te am wér lool ba li mu yéene yëpp mu def ko na mu ko bëggee ci barke sëriñ Touba maamam di leen nag yéen ñii di leen nag euh, sant tam bu baax sant goo xam ne nag dongo yëpp leen ko ameel ndax fa tabaarakallaahu ki fi jóge yàggul mu sëñ aat taxawaay yam doon taxaw bi koor gi ñëwee ñëpp gisaat nañ taxawaay bu raw boobu ngir taxaw mu mel ne yéen li ngeen nekk sëñ Tuubaa nangu na ko moo tax amul changement lépp a yokk melokaan yu dara sikku ci kon ba tax na yéen itam ñëpp amee nañ leen cant amee leen gërëm rawatina nag jataay bi nga xam ne nii xasida yi ñu fiy jàng euh, te la Cheikh Saliou waxoon fu ñu koy jàngee lam ca lam ca dë lam ca dëxañ lépp loolu kon yéen day mel ne bu sëriñ bi doon ñëw ci saayir di am fu muy dali yaakaar naa du leen tegg kon ba tax na ñu ngi sant ñëpp di sant tam njaboot suñ ci waa gi ñu fi fekk yëpp suñ xaari moomu sëriñ Mahmoud Aw Balla mi ngi toog Daaru Moxsi sëriñ Cheikh Coro ngi nekk sëñ Baara fa tabarakallahu sëriñ Mahmadan imaamul masjid sama sang yu baax yaa ngi ni toog loolu dafay mel ne bu luy amutoon ñii ku leen dajale feneen nga dul xam kon suñu ndax na ndam ci loolu ndax lii ak njabootam la te nos la loo xam ne ñëw ñëpp kenn ku ne booy dem sax doo ko siyaare da ñëw ci ndigalam rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Hmm?